Et puis d'ailleurs, je démarre tout de suite avec Aliou Mamadou Dia, euh, candidat du PUR à l'élection présidentielle. Euh, monsieur Dia, euh, bonjour, maa ngi lay dalal jàmm. Maimouna, bonjour, remercier ci euh, ci invitation alors euh, yow suivre nga comme ñëpp la déclaration du président de la République dafa mel ni euh, en abrogeant le décret de convocation du corps électoral il n'y a plus d'élection lan moo ciy sa xalaat waaw Maïmouna xam nga j'ai un sentiment de honte pour mon pays j'ai un sentiment de euh, je dirais j'arrive même pas à exprimer les sentiments qui m'envahissent en ce moment parce que c'est c'est extraordinaire ce qui se passe dans notre pays euh, les Sénégalais Maïmouna ne méritent pas ce que les hommes politiques notamment le président de la République vient de faire ce n'est pas normal nous avons un grand peuple. Nos dirigeants ne peuvent pas, ne peuvent pas faire des choses comme ça. Parce que li xew tey mais kenn xamul lu mu doon ci république est-ce que ñun république la ñu am est-ce que ñun euh, sunu réew xam nañ fi ñu bëgg mu dem parce que bu dee des pour des raisons de politique politicienne ñu jël tout un peuple dix-huit millions de Sénégalais en otage comme ça mais eh bien c'est pas normal nous avons mal moi j'ai mal pour mon pays j'ai mal pour mon peuple le Sénégalais les Sénégalais ne méritent pas cela les Sénégalais ne méritent pas d'avoir des dirigeants qui se comportent comme ça ce n'est pas normal ce n'est pas normal donc li fi xew tey mais dañ koy naqarlu te ñun dinañ ko naqarlu dinañ ci dox dinañ ci taxaw dinañ ci wax lépp loo xam ne mën nañu ko wax ba sunu réew ñu libérer ko parce que lii c'est prendre tout un pays tout un peuple en otage pour des intérêts purement politiques de leneen non c'est pas normal nous avons mal pour notre pays le Sénégalais le Sénégal ne mérite pas qu'on le qu'on qu'on qu'on qu'on les traite comme ça les Sénégalais le Sénégal ne mérite pas cela le Sénégal a connu les plus grandes figures de l'Afrique le Sénégal a connu les les les hommes les plus saints de ce continent de ce monde le Sénégalais a connu, le Sénégal a connu des hommes de valeur qui nous ont représentés dignement à travers le monde. loolu président de la République pour les intérêts ak bu mu mën a doon bu dul intérêt supérieur u nation bi warul tax mu téye Sénégal en otage jaaduwul jaaduwul te dañ koy naqarlu moi je condamne fermement li nga xam ne moo xew mais lan ngeen lan ngeen fas yéene ban fas yéene ban taxawaay ngeen fas yéene. Eh, am ñu ngi ñu ñu ngi ñu ngi concerté wu on va se voir tout de suite ci kanam ak beaucoup de leaders de leaders politiques des candidats ñu xool quelle est la démarche à adopter de manière coordonnée et de manière intégrée on va on va on va lutter pour libérer notre pays parce que ce n'est pas normal du ñu toog ñun Sénégalais ñu nangu benn nit. wala ñaar ñetti nit di jël suñu réew en otage c'est pas normal du yoon donc ñun ñu ngi waxtaan ñu ngi waxtaan man léegi laa génne RTS def sama déclaration parce que dama jàpp ne ci état de droit la ñu war a nekk dama jàpp ne on a une république dama jàpp ne dañu war a am une démocratie donc ñu ngi ci waxtaan ci kanam dinañu daje euh, dinañu gisee on va définir benn feuille de route pour xool effectivement nan la ñuy taxawee mais pour suñu taxawaay du suñu taxawaayu bopp taxawal waa Sénégal la parce que Sénégal tey amul ku fi amul lu la nax ci li nga moo xew léegi nii